di jiital si nuyoo bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér. ay mbokk yi doon gisee suñu taxawaay fii ñu ngi nekk fii si Côte d'Ivoire ngir indi leen liggéey bu am solo bi nga xam ne waa kuréelu matu xadim ñu ngi koy amal muy bisub xasida at mu jot ñu di ko fi amal waaye di ko amal si gox yi fasantikoo ren nag waa Touba Adjami war kaa amal di ko defee fii si plateau. mbokk yi académie bi nan ma fàtte bi si TV Gouye Mbinde ñoo leen fi teewal ngir fas yéene lépp loo xam ne ruusee na fi rek insha allahu taala ñu fas yéene leen kaa dégtal dinañ dékk suñu micro jëwriñ yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu leeral li nga xam ne mooy jëmmi liggéey bi fii la ñuy fas yéene taxaw dugal leen si biir liggéey bi lépp loo xam ne amee na fi rek insha allah daal di bi jëm mbokk nga xam ne waa Touba Côte ñu ngi koy amal di fédération xidmatu xadim waaye ñu ngi taxaw ak suñu jëwriñ sëriñ Moustapha Fall mi nga xam ne mooy njiitu daayira bi sëriñ Moustapha ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la ana nan nga gisee liggéey bu am solo bi nga xam ne ay at ngeen di ko waajal ba tey ñu ak si bis waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wajal jamia sayaati asanaat wajal bi aqaadi mustaxsanaat barkeb seexul xadim jërëjëf sëriñ Sis xanaa di am mbégte rek di gën a santaat suñu borom di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne jërëjëfe seexul xadim jaajëfe sëriñ tubaa barkeb sëriñ tubaa xanaa di am mbégte lool ci ni woote yomb na waaye wuy si moo jafe boo gisee tey jii mbooleem ku dib taalibe nga nekk fii wala nga nekk bitim réew sa xol mi ngi Côte d'Ivoire rawatina nag ñi nga xam ne bii ñoo nekk ci intérieur du pays bi ñoom ñëpp kenn ku nekk euh, jël na ànd naag mbooloom ak waa kër maam jaara ñi ànd ñëw ngir jëmmi sëñ Tuubaa waaye ngir jëmmi bis tey jii nag noo ngi am mbégte lool di santaat yàlla bu baax a baax a baax di nuyu moo xam ne ñëpp ñoo nga xam ne ñoo ngi seetaan ci seen jumtukaay yi nga xam ne bii moom ngeen ànd ak moom jóge senegal ngir yaatal bis bi noo ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ñaanal ak yokkute barke borom Tuubaa waaye daal li ma mën daal mooy ne bis bi tàmbali nañ ko fas nañ yéene it ànd ko tàmbalee ko ci sëñ bi yem ci sëñ bi muy sunna rek lépp daal teg ko ci sunna kon nag ñoo ngi euh, waat xel rek ñëpp rek di leen ñaanal yan nañ ko teew at yu bari barke barke borom Touba suñu borom yàggal Sëriñ Mountakha lool ak njaboot Sëriñ Touba gépp ak mboolem kilifay diine yi jërë ngeen jëf. mu bis bi waajal ngeen ko ay at ba egg si ngeen si liggéey bu am solo ana nan ngeen fas yéene doxalee programme waaw jërëjëf sëñ xam nga bis liggéey sëñ Touba fi mu ne nii dafa yombut mooy saa soo àggalee bis ni tey jii bu subaa la ñuy tàmbalaat di waajalaat bis bi ndax noonu la ñuy waajale bi sëñ Touba saa suñu saa suñu xëyee rek dañuy tàmbaliwaat beneen liggéey bu bees loolu moo waral jéego yi niñ ci toll nii ñu am ko liñ ci bëgg a waajale mooy li ci jiitu mooy li nga xam ne bi mooy sëñ Touba nee na lépp lu am moo ko may mooy alxuraanul karim moom la ñuy jëkkee euh, ci biir saal bi nit ñaa ngi ci di jàng alxuraan waaye ñu koy waajal ci xasida gi nga xam ne bi moom lañ ko tuddee xasida gi nga xam jàng ay lim yu baree baree bari ak mboolem xasida yëpp waaye nag mel ni kuréel yi tàmbali nañu fi mu ne nii ndax kuréel national jàng na léegi te fas nañoo yéene kuréel bu wàcc beneen tàmbali am nay jàngkat yu bari yoo xam ne bi dañoo jóge Sénégal ngir jëmmi bis bi waaye am télévision yu bari yoo xam ne dañoo jóge Sénégal ngir jëmmi bis bi te mën nañ cee ràññee Mafatihul Bichri mën cee ràññee Guy Mbind TV ak académie naan Baaxil Xadim ak beneen télévision boo xam ne moo nekk ci réew mi ne ànd ak ñoom liggéey suñu taa mooy Akwaba mel na ak yokk am na ci waaye yokk googu it lépp dañ koy delloowaat sëñ bi rek xam ne nun duñ ci dara ndax bi muy jaar fii dey metti woon na lool waaye boo gis boo ñëwee tey jii day métit woowa métit woowa lu mu métti métti tey jii sa xol dina ko seddee xam ne tey jii bis bi bisab sëñ Tuubaa la noo ngi koy waajal nag fas yéene euh, fas yéene teeru teeru gan ñëpp rek waaye nag fas yéene teeru njabootu Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne bi ñoo nekk ci dëkk bi ak nga xam ne ñoo jógee Sénégal ngir ngir jëmmi bis bi te buñ mën nañ cee ràññee ku mel ni Sëriñ Isaaxa moom Sëriñ Basiru ak Sëriñ Mutalaam Sëriñ Abdoulaat ak mi nga xam ne bi moo nekk fii waaye da ci ràññee jëwriñ ñi nga xam ne ñooy jëwriñu mag yi muy Sëriñ Magumba Caam ak Sëriñ Aliou Gàkku mi nga xam ne bi tey ji ko commune lañ koy defee ak Baay Ibrahima Fall ak Sëriñ Ibrahima Ndiaye ak Sëriñ Moustapha Caam mi nga xam ne moo nekk abooba ak euh, Baye Arouna mi nga xam ne moo nekk Basam waaye waaye mel na ni jëwriñ yëpp ñu ngi ñëw kon nag loolu ñu ngi ci waajtaay fi mu ne ni bu baax a baax a baax di sant baax a baax nag jërë ngeen jëf mbokk ko fas yéene ànd ak yéen si nga xam ne mooy am fii si Touba Côte waa fédération Xidmatu Xadim di ko amal ren di dixième édition kon nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen lépp loo xam ne ruuse na fi rek incha allah des na leen ko dégtal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh

wa mbokk kon niñ leen ko waxee woon rek ñooy taxaw waa kër Seydina El Hadj Malick waaye eh, bisu Seexul Xadim njaboot gépp benn lañ ginnaaw doo leen fi teewee sëriñ bi yéen kàddu ngeen yëkkati si jëmale ko si bis bu am solo bi waaw kay baax gannaaw bu ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sant yàlla julli Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam xanaa di am mbégte mu rëy léegi niñ ko waxee ci biti bi ñuy dugg ñu ne lii ndamul islaam la balaa muy nag eh, ndamul Sénégal di nekk ndamul seydul seexul xadim radiallahu taala ndamul lislaam la d'abord ndax fii ci plateau di fi def lii mën nañ na seen premier mosu fi am ndax ñu ngi bëgg yàgg ci dëkk bi mosuñu ko fi gis waaye fi ñu ko teg ci route bi nga xam ne ku jaar di ko gis day jëmmal lislaam di taaral lislaam dajale fi nag mboolu mu jullit doomi Sénégal yëpp daje fi rafet na rafetlu nañ ko ñu ngi ñaan yàlla lii yàlla na ko yàlla jëmale kanam waaye di ko dëgërale suñu yaakaar mag ñi li ñu nekkoon démb ak bëgg démb loolu rek mooy dëgg ak jamono bi ñu toll ni li ñu wër ni mu bëree ñun am nañ dalil bu wér ne lii ñu jàpp nañ ci mooy bu baax mooy li ñu mag ñi jàngal ndax mooy dëgg ndax dara melut ni moom ndax mooy jëm kanam lu dul moom ci suuf rek la jëm incha allahu rabbi ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla lii yàlla bu mu nekk suñu muñu dajee waaye liñ ciy sàkku yàlla yàlla jox lu kayo suñu njort bi jaay si du jot Abidjan fii nag yàlla defal nañu tawfiix mooy njaboot yi benn lañ njaboot Seexul Xadiim ak njaboot maam Seydi Hadji Malick Sy bu ñuy xewlee doo ko xàmmee fii boo xoolee muy ci sécurité bi muy ci lu rek ñoo ci bokk di nekk ñun ñi bu ñu xewlee ñoom ñu ñoo fay njëkk ñoo ñu mujj te ñoo ñu ciy mën loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla di ci dalal xel ñëpp waaye nag wax dëgg yàlla di ci sant rabbana tabaraka wa taala xam ne moo ñu ko wërsëgalee di ñaan yàlla ñëpp ñaanal ñu yàlla loolu jëm kanam ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm yéen tamit yitte bi ngeen def jëlee ko ba Sénégal ngir lii dëgg dëgg yàlla ñemeloo ñu la ñemeloo ñu ñun ñu nekk ci àll bi la jërë ngeen jëf yàlla na yàlla dafa ñu sutura may ñu fekk at ñu bëri salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant bu baax jërëjëf Diop. la